nopp bu garaaw boo xam ne nopp la boo xam ne képp ku ko def nit taragaloo ci yàlla incha allahu rabbi yi da nga ci lor kooku nga xam ne moom nga koy def ndax nopp la boo xam ne boo ko defee ki nga ko def moo xam muy góor wala muy jigéen dana la topp ni xar di toppee boromam incha allahu rabbi yi loo wax waaw dana wax waaw loo ko bàyyiloo dana ko bàyyi te loo ko def loo itam dana ko def loo ko laaj itam dana la ko jox yow mi nga xamne da nga am jabar mu dem nga bëgg mu ñëwaat yow mi nga xamne sa jëkkër daf laa wacc nga bëgg waat yow mi nga xamne da nga am sa borom kër mu ut ñaarel te ñaarel bobu di yaq manam ay mbir wala yow mi nga xamne bëgg nga sa borom kër yor la yow ak ñaarel bi ci yarum bi baax insha allah bo jëfëndiko secret bi lepp lo bëgg ci digënté bobu insha allah dana ci am secret bi nak pour défar ko ñi ngi koy defar ci li nga xam ne maana moom mooy signeel lañ koy liggéeyee ci bopp signeel lañ koy liggéeyee ci lañ koy liggéey secret bu garaaw la bu yéeme ñu ngi leen di wax ngeen abonné te itam di partager vidéo yi incha allahu danañ ñëw ak yéen léegi léegi léegi incha allahu rabbi yi ci li nga xam ne moom mooy secret boobu ñi ngi sant ñi ngi gërëm ñi ngi leen di ñaanal yàlla yal na yàlla def jàmmu Sénégal te def ko ci àdduna bi yëpp yal na yàlla musal leen te musal leen yal yàlla feesal